nek ngi nan situation bi nan la gérer. situation la bu nga li la leen di situation la bu qui concerne la communauté lebou de Dakar jéemuma à gérer pour la raison suivante Pour leen seen nopp bu baax a baax dafa am Sénégal qualité yu L'État tax Sénégal nekk Sénégal y am une communauté majoritaire est wolof et wolof a une identité ethnique le wolof ne se définit pas en tant que wolof Il une identité ethnique comme ni ko comme ni ko le Wolof se définit en Saloum Saloum, en Nyambu Nyambu, en Kayor Kayor, en Baal Baal, en walawa. Jolof Jolof amul identité ethnique Yalla, deuxième bi muy am une religion majoritaire muy Islam. islamique l'islam n'a pas d'identité religieuse. Les musulmans ici se définissent en tant que mourites, en tant que tidane, en tant que khadir, en tant que laïm. Donc la majorité, la religion majoritaire n'a pas d'identité, d'identité religieuse. Quatrième élément, troisième élément du moyen moi qu'il y a une confrérie majoritaire qui n'a pas d'identité confrérique. a la confrérie Tiyan. Les Tiyan se définissent en Tuaon, euh, Medina, Medina Bay, à euh, Canada, à Medina Gounas, etc. Mais le plus important de tout, c'est que la communauté originaire de Dakar n'a pas d'identité ethnique, moi, les Lébou. La communauté Lébou n'a pas d'identité ethnique. La communauté Lébou, dañu yaatal ubbi seen dënn ku ñëw ñu fat soit des joolaa ñu fat soit dee séeréer ñu fat ñu fat Nous

déedéet mais alaaji monsieur Diop ba mu fi nekkee alaaji Ibrahima Diop ngi fi woon maa ngi fàttaliku ñu ñëw Dakar man Serigne Cheikh Sy Mansour ñu ànd ak sama papa muy sama premier voyage Dakar bi ñu ñëwee nag ba am quelques jours sama papa wax papa Babacar Diop na ànd ak Cheikh yóbbu ko mu nuy ji alaaji musa jóob na ko dem nuy ji muur jóob na dem nuy ji Ousmane Diop Kumba Paté na dem nuy ji alaaji Ibrahima Diop waaye nañu jëkk ci seen nijaay Amath Diagne Daïra Amath Diagne Daïra mooy jox suma yaay sagari njaam mun ko yóbbu leen yóbbu ko mu nuyu ñooñu seen Cheikh ne ma kaay gunge ma boobu ay xale lañ ñu demee seeti nijaay ma daan daayira ba jóge fa nag ñu door dem seete alaaji musi jóob alaaji musi nuyu ñu ndeysaan may nu xaalis wax wëllëreem ak góor gi wax yépp waxe nag indi affaire u Ndakaaru tubaab yi ñoo ma jox fetal gi nii man la ñuy reconnaître comme grand signe de Dakar ba ñu demee kër Baay Ibrahima Diop moom tam mu wax a wax wax génne benn jaasi ni maa la sëriñ la Dakar man la tubaab yi nangam nangam bi fi Baay Moussa Diop jógee Abdoulaye Diop yëmbal moo opposé Ibrahima Diop biñ fi jógee ñoom ñaar Momar Marème ak du Diop Moussa

te nous moom Dakar duma fi accepter Serigne Dakar d'accord..! d'accordul loolu ma de wax ni il y a une forte pression politique de Samba et Kabirou Mbodj Dakar ni yow ci Je ni deuxièmement suñ ñaari jabar bokk ndeeg bay mu ne ah bon mu ne ah su ma ko xamoon nag du ma du ma du wax ñu bàyyi ko du ma wax ñu bàyyi ko waaye nag xamu ko woon te dañ ma ni moom paraa la Pra Sénégal Pra Sénégal. dañ mel ni Paxa la te Ndakaaru nag waaw du jëm Moussa mi jur Abdoulaye Makhtar Malika mi ñoom ñoo moom Ndakaaru ñoo ko war a farlu mun ma waaw je sais je sais Abdou Aziz mais politicien du xool loolu ñaari yoon xuloon nañ ko bii mooy bi ñu jëlee Lat Joor def ko héros national ma dem man ko Cheikh un héros national Il suis dit ci ada ak ci ba def li mu def wax ko dem Mali fi mu jaar Arabie Saoudite dem ba Palestine dem nigeria moom Cheikh Omar Fouti ma ne kooku moo war na ko euh, héros national président Senghor mu ne wéy wéy ci yéen ci yéen waaye pas ci nun politicien <laughs> c'est ça bon ñu fii xeex ba dem xeex ba dem ba mu woom ma ñëw mu ne comme du jóob monsieur sa doomu la leen bëgg nga wax ko mu juboo ak Momar Marème mu nekk adjoint ñu defal ko lii defal ko lii defal ko lii ma dem wax ko ko mu ni ma waaw man moom ma yëf yi Ndakaaru ko moom su ko waa Ndakaaru nangoo gisuma ci leen lu ay waaye nag Ndakaaru ko moom gannaaw gi ñu bari ci mag ñi maa leen contacté nii jubali leen ñu jubale leen jël Momar Marème mu jiitu def du Diop adjoint mais yàlla may def lu ko soob jël du Diop yóbbu grand Serigne Bachir Diagne ñëw Serigne Bachir Diagne ñoo bokk ndey ak baay tuddee na doom bu am ñaari jabar ma suñu teqali ko ca daara ja ñu indi ko jële ko Dakar indi ko Tivaouane sama bàyyi jox ko bàyyi amat loom nuy ànd ndax yaayam ak sama yaay nii la yaayam moo doggali sama yaay ñu songo ko man ni ànd ah. duma nangu ñu songu Basiir ma daw dellu gannaaw damay ànd ak moom sama yenn ko ci mbir waa Ndakaaru waaye Basiir moom dama koy défendre dama ko défendre jusqu'au bout jusqu'au bout am Wade di ñëw wàccee ko Bachir yu mel na kaani di ko attaqué guddeeg bëccëg suba ak ngoon Abdoulaye Wade woo ma ne ma dama dégg Bachir Ndiagne sa mbokk la te sa xarit mu ngi dal si sama ko te ko ma ne ko yaa ko tooñ mun ma lu ma ko tooñee man ko danga ko fekk ci teraanga nga wàcce ko te sa yoon nekku ci di wut sa sëriñ Ndakaaru man ko te sam papa nee na koo teral mu bëgg la ni mu bëgg teraanga ko tedd mu bañ ne ni mu bañ a tedd yaa ko ko te gis nga Bachir ko yàlla dolli leer fa mu man ko attention moo doon xeex moom man moom lay bëgg mu ànd ak man ni ko fit wa rëy na wa dang te du dellu nga ci yow nga def ko yaa ko toroon ah xam nga mu dajee moom ba ñu waxtaan ba jubóo lii itam amul solo bu ko nit ñi grave la seulement li ma d'accord rek benn néeg ñaar di ci xëccoo bu doon ñaari suñu de Dakar benn néeg la Mariam Diop Maxtaar moo jur Bachir mu jur kii moo jur Doudou Diop Moussa mu jur kii pourquoi ngeen di xëccoo Dakar seulement nit ñi nag may la ñu tuuti nit ñi nag defaree lu yàqu léegi dootuñu ko def dañuy gën a yàq rek di gën a yàq mais loolu danañ ci jóg waa Ndakaaru danañ ci jóg dëgg la Dakar lébu yi ñoo ko moom mais ñun lébu lañu nous sommes des lébu sama papa am na ñaari soxna lébu jur ci ay doom sëñ Mansour ngi nii lébu la mbaaw gii la dëkk Sidi Ahmed Sy ngi nii ci ritière Habib Sy ngi nii toog waaw sama ñaari soxna lébu la amoon sama papa ñetti soxna lébu sëñ Moustapha mii suñu taw Habib a ngi nii toog ala bi lébu la ma Seydil Hadji Malick jël maam Anta Sall magi Dakar ñoo ko ko jox ndax daf daan ñëw Dakar di dal ca kër góor ga nduuru ba góor ga gaañoo Maodo toog ñëwatul dakaar ca mandoom ga ñëwatul Dakar ñëwatul Dakar ñëwatul Dakar ba maggi Dakar di def délégation dem seeti ko ni ko lu tax ñëwatul Dakar mu ni ah man daal ñëw di teggi fa ma daan dal ngor mayuma ko ñëw di dal ak jigéen nit sharia mayuma ko loolu Sidi Hadj Malick wax ba maggi Dakar defee délégation fekk ko tiwaar ni ko lu tax ñëwatoo Dakar mu ni kër di góor gi Ndour Ablaye Ndour gi ma daan dal ngor mayuma ma ñëw teggi ko te ñëwet dalaj ay jigéen sharia mayuma ko ma faf toog ci wow mag ñi ñëw dénk ko soxna si mu am ko waaw moom tam am ci lébu waaw sëñ Moustapha am na ci ñu sëñ Habib ni sama papa Habib wax naa ko ni ñett ñaari jabar yi libu la amoon waaw sëñ Cheikh am jabar libu ay dana yaayam ci libu sekkeen yi bokk tëngéej ca la bokk waaw Papa Malick suñu caat bañ na ko sax ba moom nee na moom moog Serigne Mbaye si ñooyam ñu man ne xanaa du ngeen ñaare ñu ni ma borom parti boobu dëkkoon ndar nu mu tudd ma ne Ablaye Dieye ñu ne allah wahidul ma ni waaw ñu ni ma ah kon allah wahidul la ñu nekk ci benn bi rek waaw kon ñun ay lébu lañu am nañu droit bu baax dugg ci te daañu ci dugg wax waa Dakar ñu wax seen ñaari doom yi ñu bàyyi lii

Abdoulaye Makhtar ñoo bokk ndey seen benn maam moo jur kii jur gi waruñu xëccoo ñu seet li tax ñu xëccoo ñu jubale leen ñu bàyyi kenn bàyyi ci ñu dem continuer loolu nag danañ ci jóg man dinaa ci sol dal incha lépp nekk ci jàmm ñu bañ ko def rek événement déedéet bi ñu ko defee fii Ndakaaru loolu moom waaw benn néeg la Mariam Diop Makhtar moo doon suma wëllëre yaay su ñëwee tuwaan suma néeg yaay lay dal ci biir néeg ba ñooy bokk néeg séq la ñu séq ñoo ko xam bi muy dox mi ngi taxaw kere ba ma jëlee soxna sëñ Cheikh ñëw soxna saa ngi tëdd ma ni ko dafa mel na dafa nekk ci waajtaay bi mu ni ma jàngal ko yaasin boobu nun ñaar ñu ngi taxaw kenn ñetteel lu xanaa soxna mu xayri mi taawam bu jigéen mu commencé jàng yaasin soxna si xippi ni ko duma dee hôpital waxoon naa leen sama néeg laay dee ni pat mun ma am ah, nañ ko génn maa ngi jiitu jiitu waaw pour apaiser esprit njaboot gi waaye indi ko ci guddi gi ma jël sonn si yóbbu Mariam Diop Makhtar xëy di ko indil ndékki ñu ne ko jël nañ ko biig mu daldi aw yoonu Tiwaawan la toog neuf jours suma yaay dóor a génn àdduna ñii ñoo bokk ndey suñu néeg yi benn la sama néeg ndey ca Kaolack buy ñëwee Dakar kër Mariam Diop Mokhtar la ñuy dal moo jur Moussa du Diop Moussa moo jur Bachirou Diagne ñu bokk benn ndey lii waroon diggante ñaar ñi nañ ko dox mu rafet ma ba noppi Doudou Diop ñu may ko sama doomu nijaay Ousmane Marietou Ousmane ak sama ndey ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk néeg bu ñu jële jabar njabootam ngi nii ba dañuy ñëw di ma seet si bërki dem rek lañ fa mujj jóge Dakar ñam ci am bokk ak samay doom benn ndey waaw ñii dañu mën teqali nit ñi ñoo dul defar lu baax rek parce que de wax dëgg moo leen yombatul te yonent bi nee na bu ñu demee ba kenn dootul wax ku tooñ yaa tooñ bu njëboon nañu tàggi àdduna dañuy tàggee àdduna la wax de yaa tooñ nag kenn du ko waxee ca mbedd mi ñu ko wax ñoo koy war a wax fekke ko ñu waxante lu baax mais lii jekkul te du jëkk waaw ak vaincu du am mukk seen diggante fii nu toog nag laa koy waxee ba ñëpp dégg nañu lii moo suñu position ñu jóg nag suuf suñu daal jot na ci Sénégal nit ñi di dox lu baax di dajale nit ñu baax ni ñuy jegentewoo mais lu mu yàqu rek baax na sama yoon nekku ci ah ma tàcc ko ma ree ko ay ah, ca jàmbaar nga de ah, dégg naa leen li nga waxee bilaay bàjj bi bokkuloo ci te boo wéetee wax leneen loolu moo xam Sénégal moo tax kër yu mag yëpp tas kër yu mag yëpp tas su ko defee kon nag ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp ndokkeel leen yéen ñëpp ci weer